billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi siibu seen site internet bi di 24 actu ñoo deesuwaat ak yéen ci waxi Serigne Touba yi Serigne Touba xaadalahu laahu maxtaara lahu nee na bu nit faatoo ba ñu sàng ko ba teg ko ci bàmmeel ba jëf ci dee randu si bu fekkee jëf ju bon la woon mu buur di xoloog moom naa ko loo fay wut nit ñàkk xarit ya ku ne buur di wane di wane na nii laa toll ci moom defar leen bàmmeel bi néew bu dëggul baaxul mel ni da koy taxa texe wala da koy tee texe mu naan jëf ji loo fii wut jëf ji naa ko dencal sa làmmiñ wu wii tey mel rek ngay gis bu ñu ko dugalee ñu daal di ruufoo ñu fopp suuf ak ndox ak bant teg ca kawam te naan ci yàlla ñu nekk ca biir di damante am na ku ñuy wax abdullahi ibnu salaahin atandaxiyu sëriñ Touba da ko mos a wax am na xasida gu fi nekk goo xam ne ku ko mokkal munkar ak nakiir duñu la laaj ci bàmmeel mu ne laa ilaha illallahu anamu sëriñ bi ne ko mi ngeeg Muhammadul Amin moomu mu ne wallaahi dinaa ko mokkalal samay doom ak samay soxna ak samay jaam ak ñëpp di rek sëriñ bi di muuñ xasida googu mooy jaawaatu am na naar bu ñuy wax alxaaji Ibrahim mas na ànd ak sëriñ Touba. ñu yendu ci ak garab mu génne jumtuwaay bu ñuy toxee di ci def póon daal di laaj sëriñ bi ne ko loo wax ci lii sëriñ bi ne ko tee ngaa def rek te bañ a laaj mu ne ko mënta ñàkk ndax wuute yi daa bari am ñu koy daganal am ñu koy xaramal sëriñ bi ne ko kon daa am lënt ci yow mu ne ko waaw sëriñ bi ne ko xanaa gisoo laxdari yu mu ne ko gis naa ko sëriñ bi ne ko wax na ci tàmbali ba daganul ci menn mag muy def loo xam ne xamul la ca yàlla àtte mënoo woon a lu ba xam li ci yàlla àtte wax jooju dugg ko lool mu sëgg lu yàgg siggi ne ko seedeel ne bàyyi naa ko ngir yàlla daal di koy suul ca booba bis jébbalu ci sëriñ Tuubaa mu rasul ku ñuy wax sëriñ Malick Baasi Si radiyallahu taala anhu nijaayam mas naa tawat tawat ju metti mu ñëw ci sëriñ Tuubaa ne ko dama bëgg nga bindul ko saafara sëriñ bi ne ko jox ma alliwa ji mu jox ko ko mu bind ca ba mu fees mu raxas ko ci ab defukaay jox ko ne ko boo demee na ko naan te lu mu wax na nga ko diglu te jàpp ko boo del see nga nettali ma ko ba mu delloo waxtu guddi la àgg saalum jox ko ko mu naan ko mu def ko biir buy yëngu fanaane ko ba bët set muy wàcc ba génne lu mel ni aw dog wu nuroog aw res nis tuuti mu faatu sëriñ Malick jël loolee mu wàccu àndaale ko wan ko sëriñ bi mu koy xool ba mu yàgg mu ne ko maalik yaa ko dimbali sa nijaay li tax ma wax la loolu mooy sa nijaay li muy bari bari ñu mu jàngal alxuraanul karim bu faatuwaale woon lii safaanub aljana la jëm lii mooy ak rëy day sax ci biirub nit mel ni ab cër ku ko faatuwaale faw nga dem sawara ndax cërub sunu borom la subhaanahu wa moo tax ma ne la yaaka dimbali sa nijaay ndax dañu gu gi nii sababu ci yow wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu